أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق نبيل مصطفى القارئ أبو أحسن الفاروق مدر ونادر به تستدين المصطفى أبي ساب من دار نعفى نصر الحياة له نور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 wa dakara sma rabbihi fa salle bal tuufiruuna alxayaata addunya walaaxiratu xayrun wa abqaa inna haada inna haada la fi suxufi luule suxufi ibrahima wa muusa allahu akbar allahu liman hamida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 والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتعواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها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 شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 rabbi audu bika min hamazati shayatini wa audu bika rabbi an yaxdurun bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakiyin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wattamkin amma baad fa hada alyowmu yowmu alciid likulli muminin muslimin muxsinin saciid fashkuru llaha tabaraka wa taala fih ala kawnihi sururan linnabiyi wa liman yaqtafih salla wa sallama wa baraka alayhi llah